Thank you. gene adir esam ne doxam sambor lingeer ma degene adir esam ne doxam sambor lingeer ma degene Linguère maa dégg bu ma jaaxal. mooy léegi ñu bëri. da naan Issa buy buy bëri du xeex. ti ba pare Issa nekk ci yow ci yow ku la xam-xam ne. yow kaay xeex moo la gën a lu ne. sa combat arbitre soufflé na rek dagg nga waaj. Mhm. léegi comment se fait-il Issa nekk ci yow moom buy bëre bëri dóor war a taxaw du moom day mbap. comme xaadim xam ni xaadim bëy sax bëy bu àndoon moom sax du ragal. sàkkantum ak Issa maa sama keppaar. xam nga tey Issa. tey li ma lay wax ci moom tey fu ne nii bu ma ko waxee sax duñ ko mën a du yow ñi ñi xam Issa di ko fréquenté guddi yi nañ ko gëm ndax léeg-léeg dañuy dugg benn instant boo xamante ni maa moom 10 heures la ñuy 9 heures ci guddi suba la ñuy commencé bu ñu jugee salle 9 heures ci suba ba presque une ci ngoon di liggéey benn affaire kooku nag nekkul lu may parle fii quoi kooku li may xaar mooy tey jii yàlla joxoon ko ku mel ni Gris Bordeaux xam nga yàlla joxoon ko ku mel ni Gris wala ñi nga xamante ni am nañ fa ci Issa Issa mayaat leen te ñuy mayaat sens Issa nga xool ko danay xam ni Issa juum te làmb nag ku nekk day juum quoi ñun li ma la mën a waxal mooy ñun dañu dellusiwaat ci ci ji. ñu bëri li ñu wax yow ubbu la <laughs> yegsi na ci yow comprendre comme dañ jàpp ne munoo nekk ak munoo munoo munoo nekk ak benn hardcore bu benn Xaadim Njaay yow nga bëgg a nekk ba benn arab li xam nga wax <laughs> jo su ma koy dégg ay réew jàpp dinaa isa ñëwul damay xam na damay ree ma ni ko xamul xamoo quoi xamoo dañ ni bool bu ub ci ubbu doo xam la ci ne mais man du ma wax quoi côté boobu li ci kanam roolu bët gaaw la xam nga àdduna. jàppoo ne il est temps nga ubbi bool bi boo comme ñi xam li ci ne. fi ne nii dama gars yi nañu avance bi noonu xool na mbëri jël avance ñi xool gars yi doo ci yéen mbëri nu mu jël avance bi xam nu yomb de ku jël mooy di nga ji di nga ji guddee que yaa rasulilah man na moom kii ma sama ñëwee entraînement gën a yàlla kii moo tax billaahi kii xam na sama fi mu toll ak fu mu xam na bu baax kii xam nga xam ne xeex léeg-léeg maa ngi toog xeex mais day danaa noonu ah damaa sonn fii moom moo gën xam na xeex a am moom mais Sénégal nag xam ne ku nuy yeew ak ku mënu xeex mais li ci kaw rëbb dama fi nekk sama boy yi baax ay njëgën yu mot ay motaal ay bañ jàmm ay boy yi yëpp champion yi yëpp ñu ngi leen yi suraal leen daal xam ne dañuy dañuy ñëw boy kon dama naan caare man mën na fay man mën na fay mooy di leen indi ay ndam yaa ngi dégg sama ñaan yàlla yem si bëre dama ñaan yàlla su may bëree investir fi loo xamante ni dëkk bi da nga koy jariñoo loolu laa ñaan yàlla sama sama dund man ñu moom ñu naan li may mu dolli ko mos ni ko dolliwaat nooy boo ko defee bi dafa am sens day ñaana Mouhamed yaa sa gars yi yëpp ak waa RDV yàlla jëmale leen sa kaw yàlla yëkkati leen sa kaw a kaw vraiment ay jàmbaar ngeen quoi ay góor yàlla ngeen te doon arrière de dara maa yéen cinq cinq heures ba léegi maa yéen cinq heures si maa yéen ak njëg na ni ma sama gars yi ñoo xaar xay moom sama grand la ak àll gay vraiment te lim jumee vraiment man daal caare moom lu mën a fay mooy ñana ma ñaan am combat ñu xool kon gars yi leen Issa laa ragal yu lay gars yi xamuñ yàlla baax na mbëri de man amateur ñëw yaa mbëri yebu ñu mbëri ko xëy yéen micro nekk yaa Issa ndax Issa ragal la daan la mu bille ak mbër moo doon Sénégal que dañoo ak ñoom noo yàgg mbëri xamante ne baax suñu biir amateur ñooy wax ne ñu mbëri ci xamante ne mën naa jëm avance yóbbu na ko ñett yoon mu delloo ko tawatin dégg naa korom yi wax télé yi ah korom solo yi mu ni dama jox mu fa ma jaaroon fi ñëw ma jaaras ko billaahi Gris Bordeaux korom naa mi taxaw ci sànni ay xeeru njoon quoi ñoo nit sa bëre sens la quoi Gris mën naa ne njoon xaman fuuf làmb na sens la yaa ngi fu àgg njëm mën naa ko ko raw mbir kuusal rek àgg tey ji mu taxaw mu taxaw di wax yenn yi naan njoon ñoo ñoo bokk laxawaay amul amul bakk non làmb du loolu làmba course la quoi mu àgg njoon mën naa gas ko raw fu mu tee si àdduna quoi àdduna dafa gudd tànk yaa ngi dégg sa morom mbër soo taxaw di sànni xeer quoi ne làmba la yàlla mooy def lu ko neex man man isaaw man man mbër moo billahi man bëri na ñëw bëri ndaw laa de ba la ñuy ndaw xalal ba léegi ñuy bëri combat na dem naa grand combat bi yàgg te bu ma taxaw nii maa raw fii raw yàlla raw ñëpp për ñëpp ñoo bokk dégg bàyyi kon jarul sànni xeer quoi naan kii ko raw giri raw fi kenn giri ay victoire bëriwul sama diggante giri maa ëpp victoire fuuf giri maa ëpp victoire fuuf ñor nga ëpp victoire kon jarul fi ma jëe mi gars yi boo ma jëe mi gars yi naan gars yi ne avance nga dugg jël boo ma jëe bii leaahi ma feewoon dërëm ma bëri moom boo ma jëe dërëm ma feewoon ma bëri moom sama diggante yàlla man laa ma bu doon métti nag dama métti mbër man. billaahi ba loo gën a ngàndar ma gën a kontaan man. waaw. Mamadou dem jàmm jàmm rek sa baay ñoom jàmm rek laay jàmm rek laay sa baay jënd nañu si biir Amérique salaamaaleykum voilà voilà alhamdulilah. alhamdulilah. yal na yàlla dolli yiw. seen lay la lii daal la mboolem bi. lay mokk ñu lay ñaanal salaamata